kon ak pay Serigne Touba moo ko am fii ak fanu jom ak fanu mën a nekk ci daaru dunya oxra nañ koy nekkal te pay kennal kenn la. dëgg la. Serigne Touba am na ko ak suñu mu ni ci kóllëre gi nga xam ni. Serigne Touba am na ko ci digganteem ak ñi ko topp. am na ko ci digganteem ak ñi ko topp. kaw suuf kat maam. dafa nangu tappale. dafa nangu tappale. nangu wuruj.